dafa baax guy gi lii du benn yoon guy gi ma si gisee di ko xool ndax conseil baax yi may jox te du man kese yooyu ñëpp la ma defal mais li ma a ne lamb ñëpp bokkuloo yow guy gi bu ñëwee dafa mel ni Balla Gaye ñëw na dafa mel ni Modou Lô ñëw na dafa mel ni mbër yëpp ñëw dafa am yaa ngi dégg mais dama kontaan dama bëgg neuf bi li mu def dama kontaan waaw. Tapha Mbeur ñëw gis naa fi Tapha Mbeur. Tapha Mbeur Tapha Mbeur sama champion la yee sama mbër la. yombal na la muy sama sikudik sikudik dina yombal nañu sikudik sikudik e eh, dina yombal nañu sikudik rekkal sukunek waaw waaw sukunek feccal sukunek yow Siteu feccal sukunek eh. yow Siteu yaa toj Sénégal ba jéggi frontière dem MMA di nga fa ko jàpp ne leen sukunek Siteu jombal leen

de kenn moom moo daa andi daa andi innovation ban innovation la ci innovation mooy bi si dama dama dal combat nekk xale bi te yàlla teg ko loxo macha allah si yàlla loxo la teg loxo teg mooy si ne bu jógee mi ko jóg xamu ko xamu ko de yàlla la loolu nag ci la amee lépp mais képp ku nangu dogal yàlla mën si moom loo xam ne yow doo tey ñëw bi du ñàkk bëre ak moom de bu suba bu taxaw ndey saf sap dañu koo mën a téye mu dem dóor waa ji mu deñ stade bi ñëwaat xol lay wax xol lay wax mais di ànd ak moom demee daa sëriñ bu sifflé gisuma ma conseil ko ma toog. est-ce que kuy gën pare nga pour dem MMA. déggoo li ma la man maa ngi ci naan ci côté yëpp mais bu ñu waree bëri suba na leer dañuy bëriwaat. yéen daal bi pare nga pour def MMA surprise laa koy waajal rëy. surprise ngay waajal si. Ah, yow yaa ngi fi yaa lammi nañ fi baaba ga rek. bu lam sa beur ta ma leer ma sa ba ngay bëgg maa ngi sant yàlla maa ma lay fa leer temps yi maa ngi sant ak ñu vacances koy foo vacances fooy vacances ni Sénégal maa ngi Sénégal ba ci kanam rek maa ngi Sénégal ba ci kanam fi ak ay doom boo xam ne man nga jox ko bokk na ci ñi ko bokk ci ay dem bay dugg ci lamb dugg ci MMA tey woote na ci xale boo yar loolu loo ci kontaan moo yore moo yore mbër bokk ci ñi ko def champion ba yàlla dogal tey mu nekk dara bay dugg ci leneen day xam ni tey li nga namoon ci moom suñu borom def na ko waaw loolu demee sant rek comme xale la li ma doon wax ci moom laay wax xale la joxe na cër suñ ko joxe cër ñu jox la suñu bopp jox la suñu doole jox la suñu xam-xam ñu joxul cër nag ñoom moom suñu bopp dana koy nangu dana koy nangu kon bu mu nekk bu nekk. kon di nga def Amérique xanaa ànd ak moo xaar ah, loolu mooy géej gi am na ndox. yaa koy yóbbu kon. waaw dinaa ko gunge ci kattanu yàlla comme yàlla dogal koy dugg. waaw dañ dem gunge ko ñaanal ko yàlla defal ko ndam ci kattanu yàlla. am na solo waaw loolu ay. nekk ci xam di ko jongante ba tey jongante waaw li ma ko siy yokk a wér gi yaram sa xale la xale bu ndaw dama ko fenn yàlla may la lii muy sant yàlla bu baax ma wane si stade bi muy sëñ jafe yombul mais dañ ko gën a ñaanal gën a góorgóorlu mais su ñu ci Sénégal gën a Sénégal ci international ci international la parce que dama nekk xale boo xam ne li moom yàlla moo ko may doomu aadama du mu nekk mooy yàlla yor si dafa koy nangu mooy nangu te yàlla parce que li moom yàlla moo ko jox ay pour nangu man maa ngi si maa ngi gisoo man toogu ma gisoo ma ni ma mel man toogu ma si loolu laa nekk toogu ma si loolu laa nekk te bu soobee yàlla si fan yi nekk ma dégg combat si kàddu la suñu borom kontaan si combat li ma la wax ma ma si Moussa Ndoye foo toll ma la koy laaj Moussa Ndoye Moussa Ndoye yara kër ga bu ko si Moussa Ndoye yara ama neex Malick Niang kaa ñëw Malick Niang dafa cinquante place ngir yàlla kaa ñu bëre wala Moussa Diouf loolu champion la boo mooy boo bëre mbër la du ma ko xeeb sant wala sant mu def épreuve am loolu tam mu boole ma bëri mais saa yi man yaa yaa ngi la mais saa yi lamb boole gu mu toll. boole gu de. boo moo xamante ni foo ko natt weesu na ko. nit ku nekk. waaw xew la rek nga mën. dëgg la waaye woo say nit. waaw dafa jafe quoi. woote ñu fekk na nit ñi wuy si nañ ko. waaw def nañu fierté boo xamante beneen appel bi may lancé mooy. président Macky Sall ak Matar Ba. waaw laa bëgg bu jël drapeau Sénégal. waaw teg ko ci loxo Siteu. mu yóbbu ko Siteu dem jongante ji. andi ñu andi ko teeru. ñu teeru ko bégee. lii rek laa bëgg ci président Macky Sall. bëggoo leneen. bëgguma leneen mosuma woo ñaan dara mais ma defal lii rek dama joxoon Siteu drapeau Siteu dem jongante bu xeexee gañe bu ñëwee ñu teeru loolu laa ana jokkeel. ak Jokal mu ngi fa ndigil wér na dégg naa. nga ne ko kañ ba la kañ. ma ne ko le premier janvier ba le premier décembre bu ñu bëree ma tànn ko xam nga combat bi gën la taxaw. waaw le premier janvier. waaw le premier décembre lañ ko war a bëriwaat. di ngeen ko bëri force. bu bëriwul ba fekk ko seen biir waaw ñu bëree ko force parce que lii dafa métti Babacar. maama ngi. yow borom Sénégal. Siteu. bis ni ki tey jox nañ la verte zone rouge ak étoile ba nga yóbbu wax leen a yaa toj Sénégal ba jéggi frontière yi dem MMA di nga fa toj mel leen ne suku ñëpp Siteu jommal leen